Aja bani rapu sama wala dia be sama wa miro ba dadi suma wa nyama be sama aljuma lako genné ajana, aljana tay tamit néna bis penc bisub aljuma lay taxaw bisub aljuma ci la aduna di tukki kon lola bis la bislabo lolu bis la bo xamné suñu borom moko ko jaglél moko jaglél mbir yoyu benen bis fekk ko ci bokk na ci li woné bisub aljuma sallallahu alaihi wasallam itu it wax na wax na ne xeeti julli yëpp ba ca gën jullik fajaruk bisub àjjuma ko xam nit ki daf koo defee ci ko mbooloo ku yàlla tawfiqal fajaruk ajuma, subak ajuma nga juli ko ci mbooloo na nga xam suñu borom defal na la nga neelul nga fekke julli gi gën ci julli itamit bi sallallahu alaihi wasallam julli juróom yi nga xam ne bis bu nekk moom lañuy defal suñu borom ak julli àjjuma benn bu ci nekk diggante meeg moroom ja diggante julli julli julli julli bis bi diggante bu ne ak moroom ja lu fi dox ci ay bàkkaar yu ndaw yoo xam ne day mel ni borom yëgu ko wala tuubu ko julli yi danañ ko ko faral su dee bàkkaar bu mag nag day laaj boroom tuub ko suñu boroom soog ko ko faral naka noonu kon jullik àjjuma gone digganteem ak moroom ja lu fi dox ci xeeti rëcc rëcc yoo xam ne borom yégu ko wala jéggluwu ko ci ay bakkaar yu ndaw àjjuma yi danañ ko ko faral euh, bokk na ci li wane ngëneelu àjjuma itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne saa bu àjjuma jotee képp koo xam ne kii waaje na biir këram sangu cangaayul ba jóge fa dem ca jàkka ja su demee bu ma nee jege fa imaam ja nekk mu jege te bañ a lor kenn suñuy ba mu déglu nee na jéego bu mu jéego bu nekk jóge ca këram ba agsi ci jàkka ja suñu borom dana ko ko bindal mu mel ni ku woor atum lëmm taxaw tamit naafila atum lëmm loolu bokk na ci ngëneel lu bisub àjjuma bokk na ci tamit am na ci biir bis bi waxtu woo xam ne sa alayhi wa waxoon na ne képp koo xam ne kii yàlla dogal na nga dajeek moom soxla so ci ñaan tamuy lu dagan suñ borom dana la ko fajal ñi ne waxtu wi moy waxtu wi nga xamne ci la suñ borom di nangul ñaan ci bisub aljuma bi amna ñu ne moy fi imam ji toge ci minbar bi ba bañi selmal ci julli gi diggante boobu ci lañ tënk waxtu wo amna ñu ne mi ngi tàmbale ci buñ julé takusan ba nopi ba ba jant bi di so nga xamne lu ci man di doon dal kon suñ borom jagleel na aljuma waxtu wo xamne waxtu nangu ñaan la ba taxna wu mat dak la wu mat di baye xel la buñ diké nak ci li nga xamne nañ ko ci bis bi ngir képp ko xamne ki fekke nga ko te tal ko nga diko baye xel te lo ci man nga def ko te selal ko ngir yalla bëgg nañ am ñu sax dafa war nga sangu ca ngaayul janaba ci bis bi bala ngay julli ji su mané jokkalu ak julli gi sax nak mom lañu gëna tamu nga laal ci loj ko lañ ndax lépp dafay dugg ci waajtaay wi ngir màggaayu bis bi ak màggaayu barab bi nga xam ne ca nga jëm naka noonu tamit màggaayu li nga xam ne moom ngay dem di defi bëgg nañu tamit nga sol nga waaj waajtaay wu mat sëkk sol yére yu rafet yére yu set yu rafet su ma nee nekk lu weex dañu wax ne moom lañ ci gën a taamu naka noonu tamit bëgg nañu nga soccu ba nga xam ne danga mën a mucc ci lore ci xeet gu naqari bëgg nañu tamit taamu nañu nga lewi say we ba tey day dugg ci biir waajtaay wi soo ma nee teel a dem su fekkee ne amu ca ngànt ba tamit ba tey bokk na ci la ñu taamu ñu xam ne ni ñu rawantee ci ni ñuy dikke ci jàkka ji ci teel noonu la yool yi tamit di rawantee te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko misaaloon ci ka njëkk a ñëw yoolub gëléem lay am ka ca topp yoolub nag ka ca topp yoolub xar yoolu ganar, ba ci yoolu nen loolu lepp misal la rek muy wone ne yool yi day ëppante ni nga xamee ne noonu la dikk gi di tegalooyee ci ak teel bokk na ci yi nga xam ne taamu nañ ko ci bisub aljuma ku ko yàlla man loo nga jàng ci suratul kahf suratul kahf yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne képp ku ko jàng ku ci bisub aljuma suñu borom dana ko leeralal diggante ñaari aljuma yi واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد واله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 إنما يعمر مسجد الله من آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من ويقول أيضا وأن المساجد لله فلا تدعون عن الله أحدا وورد في الحديث القدسي قال تعالى وهو الحميد الوليد إن كنتم في الأرض المساجد وإن لكم فيها أنهارها فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي وحق على الميسور أن يكرم الزائر رواه أبو معين عن أبي الصلاة Wow.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 والله خير الرازقين الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله ndax bu ko mënoon day ñëwal boppam ndax fu ñuy defal Sëriñ Tuubaa fu nekk lañ ko fay defal moom moo gëm ne moo ko war a jiite ñu war a taxawal liggéey bi Sëriñ bi biñ ko xamale it nag bokk yi dëkk fii ndax noo bokk dëkk sunuy waajur doon ànd di liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu itam sunu boroom dimbaleenu noo àndaat liggéey bi sëriñ Touba sëriñ fàllu dem fa mooy li ma ci doy mooy li ma ci gënal kon loolu moo waral ñëw sëriñ Fallou gi kon mbokk yi loolu yi la sëriñ bi wax loolu nag kon dafa mel ne day dellu ci li ñuy wax ne cant gu ne ab soññee lay àndal sëriñ bi sant na leen ci jëf ji ndax jëfin wi mat na sëkk rafet na ànd na ak Pastef itam mooy Pastef bi mooy ngeen delloo lépp Serigne Touba wax na négalam ngeen ci déglu lu mu ci déglee loolu lañuy def kon de Serigne bi li muy dégle mooy nii mu yónnee Serigne Fallou ne na taxawee ajjuma ji kon nag barab baa ngi noonu ngeen fas ko yéenee saytu ci noonu li tax ñu def ko fi te loolu lañ sunu borom bëgg serigne touba bëgg ko ci kon na ngeen ko fi sam samal ko fi serigne bi moy diko taxawé da fi jaamu da fi julli waxtu yi fi julli aljuma yi aljuma yi serigne bi may na leen ngeen set ci kilifi ñi fi jégué té man ko saytu ngeen tan ci iliman jo xamné dana mëna taxawé aljuma yi ak iliman yu taxawé julli juroom yi donte moo xam kenn la moo xam ki day féetewoo julli juróomi kii féetewoo ajuma yi loolu sëñ bi delloo na ko ci yéen ngeen tànn ko ndax man xamal naa ko ne ko ay doomi soxna rekk fi dëkk ñu yàgg ci alxuraan ñoo fi dëkk ñu yàgg jaamu yàlla ñoo fi dëkk mu ne kon loola luñ ci xalaat tànn ko ca doy na ma kon na ngeen tànn yi ay yilimaan fii ñu ko tànnee ba noppi nag ñu gën a góorlu nag ci taxawee diine ji mooy ñaari baat yi sëriñ Muntaxa di wax nanuy jàmm yàlla di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa nanuy liggéeyal sëriñ Tuubaa di ko jàmmoo yàlla mu mel ne de ñaari mbir yoo xam ne menn la ginnaaw waxoon na ne bala ngaa mën a doon taalibe sëriñ Tuubaa dëgg da ngay doon jullit bu sellal ak njullitam kon ñaari yi dañoo mënta tàggoo dafa mel ne ki ak taalibe bi kon daa tege ci kaw njullit gu mat sëkk ndax ku góorgóorlu ba xaste jaar ba sëriñ Tuubaa nangul la sëg taalibe la ca des sëriñ Tuubaa koy war moo koy sàmm moo koy war kon nan na fas yéene doon ay jullit xaqan doon ay doon ay doon ay murid saadix ko defee rek sëriñ Tuubaa nangul lépp sëriñ Tuubaa bu nangulee suñu lépp nag suñu laaju faju tey ëllëg biir ak bitti وليا Thank you.